ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi ngeen mën a jot moo leen vidéo mën a xam li nu ngi nuyu mbooleem ñi nga xam ni fekk nañ leen ci jataay bi ak ñi ñu fi fekk di jiital ci nuyo bi jëmm ji nga xam ne moo ñu fi bokk dajale di suñu xarit sunu wëllëre di sunu sëriñ muy sëriñ Saalihu Mbàkke Ixlaas ndax ki doon wax léegi wax na ko yaakaar naa ni am xel mën naa xalaat lu ko neexul ay bëtit mën nañoo xool lu neexul boroom ay nopp mën naa dégg lu neexul boroom waaye ay tànk fu mu dem boroom la neex kon li fi dajale nit ñi yaakaar naa ni sa jikko rekk la Mbàkke noo ngi lay ndokkeel bu baax ci bis bii nga xam ne moom nga wootee di ci sant Serigne Touba waaye di ci sant sa maam ju baax ja sunu maam ju baax ja di sëriñ Mamor Jaara Mbàkke boroom Saam di nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ni ñoo wuy si ñëpp muy sa bokki bokk ak bokki dëkkandoo yi ak bokki taalibe yi di nuyu mbooleem jàngikati xaside yi fi teew yépp ak mbooleem ñi nga xam ni dañ fee teew te doon yëkkati ay kàddu di waxtaanee. ci diine baa ñuy waxtaane Serigne Touba di nuyu bu baax monsieur le maire ak mboolem délégation bi mu àndal ak mboolem kilifa yi nga xam ni ñooy notable quartier bi yépp bàyyiwuñ kenn xam naa ni sëriñ Saliou kàddu yi di gudd ndax guddi na te niñ ko waxee ñi ci am kàddu bari na waaye nag xam naa ni waxtaanu murit ak moroom ja moom du weesu waxtaanu pël ak moroom ja waxtaanu pël moroom ja lu wax ja gudd gudd gudd baalum bari bari du weesu naga baax waaye waxtaanu murit ak moroom ja itam lu mu yàgg-yàgg du weesu baaxu Cheikhul Khadim gi sëriñ bi wax na ko léegi dangay sant koo xam ne ñépp a maase war koo sant loolu nag yaakaar naa bu ma ko waxee kenn du ma jam ndax danaa ci indi ay argument yu leer nañ bu ma ne ñépp a maase war a sant Serigne Touba ci réew mi boo dee ab jullit war nga koo sant ngir bu sa jullit wéree nga am jàmm julli ci jàmm di pratiquer sa diine nam waree te amoo ci benn gàllankoor grâce à Cheikh Ahmadou Bamba Khadimal Moustapha mag ñi fi ne woon nag di xeex ngir lislaam taxaw bari nañ waaye nag ndam li sëriñ Tuubaa la ko yàlla jox ndax moom rek la lislaam jaraloon bakkan moom rek la lislaam jaraloon mu wan ak njabootam ginnaaw wan am dëkkam ginnaaw wan am réewam ginnaaw ànd ak ay noonam ngir lan ngir bëgg lislaam taxaw fii ci réew mi kon ku dib jullit boo jullee ba sëlmal war ngaa sant sëriñ Tuubaa boo dul ab jullit it war ngaa sant sëriñ Touba ngir sagal gi sëriñ Touba sagal der bu ñuul boo dem africain moo xam ngay jullit baa doob jullit war ngaa sant sëriñ Touba ngir moom rek lañ mas a gis ci nit ku ñuul koo xam ni tubaab yi jëlee nañ ko fi yóbbu ko juróom-ñetti at yu manqué mu del siwaat ku mas a jàmmaarloog tubaab 24 heures nee nga wëy baa nga ni wóoy baa nga ni wax xët baa say bokk dégg si gil ndigaale kenn rek moo leen tamuy Cheikh Ahmadou kon cant gi ñépp a ko amee njukkal bu ñuy am complexe di ko wax yaakaar naa ni li ma wax ñépp danañ ma ko nangule ndax ñi yàlla joxi cër ñëpp nangu nañ leen ko waaye nag njiit dafa mënta ñàkk équipe nationale bi léeg-léeg ñu seppi kenn ber ni mooy meilleur buteur du tax équipe ba tas du taxit wala firndeelu ji ña de ñeneen ña nekk ci équipe ba dañoo mënta dugal wala dañoo mënta football léegi léeg ñu seppi kenn ni mooy mooy meilleur joueur taxul ña ca des yaafus bi waaye loo gis am na meilleur mënta ñàkk Serigne Touba la yàlla teg ci kanam tey it mboolem ñi fi newoon it di sonn ci lislaam di xeex ci lislaam ngir bëgg lislaam taxaw Serigne Touba rek lañ doon dimbali waaye Serigne tubaa moom liggéey bi lil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnata wa wara wa ahmadu kon ku ca ne rek danga ko ciy dimbali waaye moom la ko yàlla dénk moo taxit bi mu ñëwee moom Serigne Touba it dafa wax dafa wane boppam leeral boppam xam ngeen ni ci gàttal bi muy taxawal yoon wi baat bi Sëriñ Tubaa wax te kenn waxalug ko nga xam ni engagement ferme la Sëriñ Tubaa jël keroog bi fi sëñ Mor Anta Sali jógee ca déwén sa rek la Sëriñ Tubaa wootee yoon wi booba it ñii ñoo fi ne woon mooy ceddo yi ñu ñuy wooye ay ceddo ak colonialiste yi fi newoon muy tubaab yi ak ñin doon woowee boroomi xam-xam ak ñan ak doomi soxna yi ñooñu yii nag kenn ku ci nekk jàppal nga ngànt Sëriñ Tuubaa moo tax Sëriñ Tuubaa teel a sonn ñi ko njëkk a opposé wu mooy boroom xam-xam yi ndax waxam juróoy joojee ba mu ko waxee ni bépp boroom xam-xam boo xam ni yaa ngi yëkkati sa tànk di jëm ci beneen buur bu dul yàlla wala ngay dem ci buuri àddina yii ci misaal mi ngi mel ni weñ jonkan yu wat yu yu yu rot weñ yi di ko di ko di ko wër loolu la sëñ tubaa wax borom borom borom xam-xam yi nag mere sëriñ tubaa ci wax jooju ndax ba mu koy wax ci 30 ans la toll doon doon doon doon ndaw ñu ni kii ëpp fi xam-xam di gone gu ndaw bëgg ñoo yilif wala bëgg fee wax loo xam ne kenn su koo dégg keroog bi fi sëñ Mor Anta Sali jógee mag ñi dajaloo ñëw ni ko dañoo bëgg nga féete Lat Joor fa ko sa bàyyi féete woon dem di ko àtteel ci diine li tax sëñ Tuubaa yëmut ak ku yàlla bind ndax kat sa jaaxle gi problème yii nga nekke yaa ngi nii dépassé suba sax mënoo ko am boo demee ci Lat Joor di ko defal la ko sa baay daan defal xëy na am koom dana bàyyi ko ci moom ñëw ci yow te dëgg la de bu doon jamono jii dama naan la waxambaane mu toll ci sampu kër yor sa njaboot léeg-léeg nga làmm sa poos war a joxe dépasse doo ca fekk dara ñun la kaa ñu yóbbu la ci président de la république mu def la ministre conseil dégg li sëntiwaat tontu qaalu li yarkan li abwaabi salaatini tawus jawaisa tuxni kulla maahin fa qultu xasbi rabbi wattafaytu bihi walastu raadiya xayra al ilmi wa dini ci waxambaane wu toll ci 30 ans allahu akbar rus naa ñaari malaaka yi may xool may soqi jéego di dem ci buur bu dul yàlla yàlla doy na ma te doy naa ko walis may gërëm loolu leneen lu dul xam-xam ak diine allahu akbar te ba koy wax booba yit <laughs> yaakaar naa ni am na borob ñetti dërëmi ngordu yoo xam ni benn naar bu ñuy wax Sërif Hasan moo ko bindal ab téere Sëñ war koo fay ñetti dërëmi ngordu amul lu mu ko fayee keroog maam Ceerno Ibra Faati la àndal dugg soowu jant gépp kajoor di jaay ab téere kaamil boo xam ne moo ko bind ci loxol boppam gisul ku ko waxaale ca jamono jooju kaamil bu sëñ tubaab bind ci loxol boppam sëñ tubaa wër na soowu jant gépp di ko jaay gisul ku ko waxaale ba koy jënd tey boo génnee wenn wenn wenn bind wala wenn xët ci mbindum sëñ tubaa man koo jaayee 400000 ba 300000 waxuma kaamil bi de ay millions lay jar moom kenn du sëñ tubaa wuute gi mu wuute ñëpp ñëpp dañ cee teg seen bët nangoo ak ñàkk nangoo fi ne léegi boroom xam-xam yi teg ko sot doomi soxna yi fi nekkoon nit nga xam ni bu njëkk la amoon mooy lekk sarax ak asaka addi ya xewul woon sëñ Tuubaa ni mu def fu nekk nit di fa jóge di ñëw di yëkkati seen addiya di ko jox ñoom it ñu commencé koo fiire ngir naan kii kat lii muy woote bu taxawee suñ asaka yi ñu daan am ak sarax yi dootuñu ko am ñoom ñu jàppal ko ngànt cedd yi fi nekkoon nag di xëccoo àdduna jàpp ni sëñ Tuubaa moom àddunaa ko tax a jóg ak tubaab yi fekk loolu lenn taxu ko cee jóg keroog bi muy woote yoon wi nga xam ne dafa waxal boppam ne saafaani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xam nga <laughs> léeg-léeg damay toog sëñ Moustapha Sallé noo ngi lay nuyu damay toog ba yàgg may xalaat waxi Serigne Touba waaye dama naan dama naan daf may dépassé sax léeg-léeg nga dégg waxi Serigne Touba ci wax ji muy wax ci engagement bi muy jël moom Serigne Touba xool bi mu ne rabbi asxaabaka bil himma nga xam ne nee na gisante naa yenent bi alayhi salaam yonent bi moo ne ko soppil léegi ci nii nga nekkee woon muy jàng alxuraan ak di ko jàngale waaye commencé la yar ci beneen beneen méthode waaye Sëñ Tuubaa déggal li mu wax ba <laughs> fa man araadal xayra fii kilta yi daaree ni fal yelus bi kenn mës wax lu mel noonu ku bëgg yiwu adduna ak alaaxira ñu ne waaw mu ne kaay wéeru ci man loolu lu ko gën a rëy amul ku bëgg yiwu adduna ak alaaxira kay yéewu ci man maay wéeruwaay bi maay muccuwaay bi ko ànd ak man hmm? ku ko mas a wax loolu Sëñ Tuubaa da ko wone gis nga dafa am ku ñuy wax sëñ ma bànji njaay daa jébbalu ci sëriñ bi nekk ci tarbiya gi yàgg lool sëriñ bi di seexal ñu bari mu jàpp ni sëñ bi da koo fàtte mu bind leetar sëriñ tubaa di ca sàkk lu mel noona bi sëñ tubaa gisee leetar bi dali wax ndaw li ni ko boo àggee wol ma ko ndaw li bi muy ñëw sëñ ma bànji seen ko muy ñëw mu jóg di ko gàttandu ngir mag ñi niñ meloon ci sëñ tubaa xam ni kii ci sëriñ tubaa la jóge mu koy gàttandu waaye bi ndaw li ñëwee nuyu ko ni ko kaay wuy sëriñ tubaa sëñ ma bànji noonu la continuer dem dëppul de dani nañ takk ta dab ma xolam mag ñi fi ñu tolloon ci sëriñ bi santaat nañ bu baax yow ñépp a war a sant Sëriñ Tuubaa waaye yaa ci war a jiitu ndax sa maam maam boroom saam nee na Sëriñ Tuubaa bokk na ci ay kéemtaanam mooy ay magam ak ay rakkam nii ko maam Cheikh Mbàkke def ni ko borom daarul moxti def ni ko sëñ ma sàmm def gisaguñ nitu yàlla ku ma sa feeñ say bokk def la noonu dama jëlale borom saam ku yàlla bind nag boroom saama la gën a gore ngor ku yàlla bind borom saama la ko ëpp lu leer nag laay wax tey dana dana dama koy teg fu leer li tax ma wax loolu mooy kër goo dugg tey kër goo dugg danga fa gis rakk ju gën a jub mag kër goo dugg nag da fa gis koo xam ne rakk ma ko gën a jub fuuf waaye du tax mag ja jébbalu ca rakk ja maam borom saam ci sëñ Tuubaa rek lañ ko mas a gisee saam nag du gone kenn déedéet téeméeri rakka la daan naa fi kenn daan naa fi la kaamil bi ñaari rakka bis mas na ko woolu Sëñ tubaab bu masaana woolu borom sàmm bu borom sàmm ñëwee du bëgg a bokk ak moom toogu da koy wutal toogu gu kawe ngir ngir ngir war ma ji benn bi Sëñ Tuubaa dañ ne ko Mbàkke dama bëgg nga gën a xamaat sa bopp dal ne ko xanaa xamoon ni mbooleem ñin tuddee yonant bi kenn ku ci nekk yaay sàkku ngir bëgg a gis yonant bi waaye yow yonant bee sàkku ngir gis la maam borom sàmm sëñ Tuubaa daana wax ni ku ko liggéeyal am ñetti pay yàlla dana la fay yonent bi dana la fay borom saam dana la fay ma fay la boroom saam rek ka am loolu kon ni sama meloon ak ni mu defoon Serigne Touba ak fi ko Serigne Touba tegoon loolu yaakaar naa ni kenn na tabletu ko kon nag Mbàkke dañ lay ñaanal bu baax ci sa barkeb maam bis bi yal na ko yàgg woote. ndax am na ko doon wax léegi bay wax ni nga mel nit ku baax nga nit ku yiw nga nit ku rafet jikku nga waaye man benn rek tax ma jàpp la muy bëgg Serigne Touba man moom loolu rek laay ànd nit ku ne fa ma ne ma ànd ak yow kennal Serigne Touba te ca nga nekk foo mën a nekk muy fii ba bitim réew ca nga ne ndax man Serigne Touba.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 loolu nag Sëñ Tuubaa dong nga ko man bari na ñoo xam ni xëyuñu gontuñu ci Sëñ Tuubaa rekk la ñuy xëy di tedd xaside yii am na ñoo xam ne ci la yëngu di tedd te <laughs> di waxaale damaa déglu Mamor Mbaye dañuy waxtaan barki démb bu Mbàkke Kajoor ma ne ko dangaa wax wax bu ma yéem damaa gis sa benn vidéo nga ne ci nettali tukkib jàmbur ci laa tabax sama kër ci laa itaas loolu ku ko yàlla ma samay ku dul sëñ am ñoo xam ne nettali mbindum jàmbur mbindum sëñ Tuubaa xaside yi <laughs> mbind moo xam ne da koy jàng gis ku toog ci biir jataay bi ferul ijji ak lii fanaanul ci bopp bi nga yëkkati ko mu dóor boppam ci miir bi billaahi gis naa ay tubaab yoo xam ne dañoo yëkkati xaside yi ñuy jooy <laughs> sëñ Saaliw sama am kenn xamul lu mu doon daaw bi ñuy bëgg a màggal poroxaan loomul seere rek neexut daam ay taalibe yu nekk Rome ma jëm si fa war faa màggale poroxaan gaar bi ma biñ ma jël si ma dugg ci terrain bi barkeb sëriñ Saliou gaa yi dañoo taxaw di yëkkati xasida ahbab tuura lañ doon yëkkati benn tubaab toog ab italien la xam kooku xam nga dégg olof bay arab dégg ko xamul dara ci xasida yi dégg gaa yi ni ñuy yëkkatee xasida yi ba egsi ci fusti mu tàmbalee jooy di jooy di jooy di jooy ba ñim àndaloon ñoo kenn yëkkati mu jox ko muy fomp bi mu dalee dal di wax ñii naan leen ana ana ana ana ana ni leen man ba ma juddoo ba léegi musique bu neexee nii tey laa ko mës a dégg noonu la ko waxee dal ni ana kan kan kan kan kan moo wax lii am ko ubbi téléphone am <laughs> gaaw am murit niñ xëre génne photo photo photo Serigne Touba di ko woon naan ko Cheikh Amadou Bamba moo bind xaside yi ñun ñu koy ñu koy woy ma wax ki ma àndaloon ma ne ko nee ko moom day na sant yàlla ndax kenn mënta tee mu dem àjjana ndax Serigne Touba moo ni ku nërta dem àjjana sama xaside yi buñ koy jàng du dugg sab xol waaye képp ku nar a dem ajjana saa suñuy jàng xaside yi dana dugg sab xol ba yëngal la kon xasida yi daa man lépp fi may daanelee nag mooy nañ koy jàng te yàlla tax nañ koy jàng te Sëriñ Tuubaa rekk tax buñ ci boole laneen te it nañ ciy boole civilisé di sol lu set di xeeñ parfum yu neex di yor it xasida yu set ñàkk war ma mënta weesu yor ak xasida di ko durus ba mu ñuul ba këyit bu bënn fu ne foo jëm lagar-lagar yóbbu fa loolu du war ma ci xasida yi mool yi rafet na léegi ñi mën a bind bari na bindal jëndal xasida gu rafet di ko jàng bu demee bay màggat nga teg ko jël geneen tey sol lu set ndax sëñ Tuubaa laataa muy ñëw lim fi fekkoon sëñ Saaliw mooy léeg-léeg da ngay gis koo xam danaan la kaay ma jox la werd werd bii boo koy werd doo lekk lu am roo maanaam doo lekk ndawal doo naan soow tey da ngay tëju weer nga tëju weer tegale say xaftaan doo sangu xeeñ xunn ngay def ah léeg-léeg ngay werd ba yàgg la nga doon werd jommal la te yaar yi ku ci dof doo doo doo wér muy wér muy muy muy muy ku dof ci wér ak yàmbaa moom dootoo wér di ba dootoo wér ba ilaa yawmi diin Sëñ Tuubaa nag ñëw dal ni solal lu set dégg nga xëy na sa parfum bu neex bul sàkk looy lekk ak loo dul lekk toogal ci jataay bi bul bero bu ñu yëkkatee xasida yi bu ñu la joxee xasida téyal tey jàng lu ñu la jox naanal bu beñe bi ñëwee sàqamil bu kafe gi ñëwee naanal tey yegg tuwasilu aqlaami ilallaahi aabidan bilaa xalwatin wallaahu na ñoo ngi lu ñëpp di balu ak ñëpp lu ci dëng it ñoo xam ne matadik naa Mbacké rek la lu ci jubi santee nañ ko Serigne Touba ñoo ngi nuyu bu baax sunu soxna su baax si ñu jàkkaar lool muy soxna Mama Ndiaye moom sëñ Mahmadan moom sëñ Xaadim aw Ba sëñ Saliou sant nañ bu baax du wax ci yow nag ndax olof Ndiaye dañu ganuk uude bu duggee ci kër lu mu boo fekkee béyu wopp lu mu ci wax dañ daan derbaata waaye yow sa jikko ñëpp maas nañ xam ko nit ku baax nga nit ku yiw nga nit ku mën a sonn ci nit nga billaahi nit ku mën a sonn ci nit nga te yaakaar naa su ma ko waxee ñi fi nekk ñëpp mën nañ koo seere man yàlla damaa bindee noo xam ne lu ma xamul ci nit mën naa ci bu ñu séqoon dem lente mën naa ñëw toog soo ma joxee kàddu ma wax su ma noppee dem waaye nag damaa xam ci yow qualité yu rafet xam si yow jikko yu rafet doo toog doo wax ci nit sax lu ñaaw dañ lay jëw jëw bu rafet billaahi damaa toog benn bis am ku ma woo koo xam ne da ngeen a daje Afrique du Sud mu ne ma dangaa xam sëñ Saliou Mbacke Lixlaas ma ne ko waaw mu ne ma moom de daa mel ne yaa koy daaneel xoolal xoolal xoolal xoolal wax yu rafet yooyu te wóor na ma ne la nga ko wax ba tax mu wax ma loolu sëñ Touba doo nga tax te jamono ji toll na foo xam ne foo mën a nekk boo waxee ci nit lu ñaaw moom bu muy tuut balaa tëdd mu yëg ko waaye nit gënu la te saa su saa su ne yaa ngi sonn ci lu baax kon nag Mbacke dañ lay ñaanal li gën a jafe mu yegg yal la ko samaam defal